te lu ma waxante ak président Macky pour que mu nangu ñëw ci invitation bi du ma ko fësal mais wax jox jox naa leen des éléments d'appréciation lu ma jot a wax ak président Macky Sall pour mu nangu le principe du dialogue mënu ma wax lépp mais lu ma mën a wax na ko askan bi déggee noonu président Macky Sall nangu na toog ñu waxtaan te wax naa ko Khalifa Sall du son noon Ousmane Sonko du son noon te ñoom ñett ñëpp d'accord jokkoo téléphone alors subitement on veut nous faire le coup de l'amnistie un coup d'accord naa beneen coup bi d'accord duma ci amnistie bi un coup d'accord naa ci dialogue bi un autre coup d'accord duma dialogue bi man soo ma waxoon d'accord duma dialogue bi mais man du ma xuus man duma ma candidat eh waay xanaa lii moom neexatul man du ma candidat man su ngeen ma waxoon yeen ñaar ñëpp baxte arrêté d'accordu ñu appel bi d'accordu ñu man duma xuus dama xuus ngir Sénégal ak ngir jàmmu Sénégal maa ngi ko doon wax léegi nii xam naa wolof bi du ma mën a guddal parce que gis ngeen tey nu ma jekkee sax damay dem Touba maa ngi nii noonu dem Touba dem seeti suma doomu ndey di suma sëriñ sëriñ Bass Abdou Khadre doon ko jox wàccuwaayam ak tamit comme nu ngeen ko xamee rek dëkk dafa am nu mu tëddee parce que ñun dëkk bi dañu am ay kilifa te kilifa yooyu bu dëkk bi xate bu dëkk bi tàngee dañ ci jot dox euh, ay jéego yu am solo tey su ma waru gar la man ma delluwaat ci kilifa yooyu wax leen ci lu ñu nekkee ñun tey te ci loolu la ñu di xaare kilifa yooyu foofu la ñuy xaare ñu liggéey ndax jàmm sax Sénégal man àdduna du dox ba ma ànd ak président Macky Sall bokkuñu gis-gis bokkuñu boor politique man du ma warkat man duma ma dóorkatu marto man je m'appelle Barthélémy Diaz te am na lu ma dul c'est fini ça c'est fini munoo ànd ak nit boole ko ci lépp mais yow nit bu ngay woo une heure du matin mais yaa ngi koy yëgal ci lu nga nekk franchement amoo amoo loo koy nëpp te nit ki su la waxoon jamono yooyu ma nga ne ko comme nag comme d'accordo ma arrêté janvier laa wax 26 janvier 2023 il y a presque 4 mois laa lancé appel kenn amul benn leader yéen ay ay journaliste ngeen sénégalais ñu ngi may dégg amul benn leader politique bu woo Barthélémy Diaz wala woo leader politique bu Barthélémy Diaz taxaw ne ñoom d'accorduñu ci appel bu Barthélémy Diaz une fois de plus c'est l'appel de Barthélémy Diaz nan na ma ko nangul pourtant nag su ngeen bëggulee jàmm bëggu leen jàmm ñu déggee ko noonu mais man Barthélémy Dias gëm naa ni que jàmm mën nañ ci am ndam mën nañ ci jaar ba am ndam laa gëm pourtant nag suñu waxtaanee suñu biir du ñu déggoo ah man président Macky Sall ci boppam wax naa ko ma ne ko ah président boobu baax da nga xam ne boote sa njaboot rek ñun tamit ñu xam ni ñuy boote suñu bos ma ne ko parce que président ñun am na ay points on ne sera jamais d'accord du ñu mës a d'accord ci sa duñ ko mës duñ ci mës a du ñu mës a d'accord ci ngay bëgg a éliminer ay nit du ñu mës a d'accord ci ñu nga jot a éliminer ba pare te tey nga bañ leen may affaire ñu mën a bokkaat mu ne ko lu ci des yëpp ay waxu ay dialogue ay waxu ay fichier électoral ay révision article L29 article L30 yooyu ay détails la mën nañ ci d'accord wante président man lu ma gën a ñor dama bëgg a dalal sa xel nga xam ne ni gaañ yi ñoo ko séqal ay ndaanaan nañu ay nitu jàmm lañu te dañ lay yéene jàmm fii kenn du la tëj kaso kenn du la topp kenn du la sonal ku ci buggul bokk bul bokk mais nag soo taxawee ne nañu ñun dinañ ameel askanu Sénégal ak amaana suñ demee jëlee euh, amnistie laquelle amnistie yaa ko njëkk a proposé jëm ko défendre bu ñuy installé charte yeewi askan wi y a problème parce que soo jàppee ne amnistie nit mën na ci am ak man naa la wax man gàddu àqu amnistie moom ma gënal gàddu àqu ay ban ay bakkan ñu doon rot yem ci wax ci